c'est jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare people 221 gannaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci ngor eh, ci génn àdduna ki nga xamante ni moo di El Hadj Fall El Hadj Fall nag génne àdduna fale ca Casamance waaye eh, li nga xamante ni moom moo ko eh, daloon dalee ko fii ci ngor loolu sabab suñu ay tànk ci li nga xam ne moo di famille wam ñu ñëw ngir jël ay témoignages waaye wax tamit li nga xam ne moom moo dal El Hadj naka la ko dalee woon fan la ko dalee woon ak yan anam la El Hadj Fall daal di génnee àdduna comme ñun ñu koy defee saa su nekk bu ñu gisee li nga xam ne moo di information li ñuy njëkk def mooy dem ba fi nga xamante ni foofu la xewee mën a gis ñi nga xam ne ñoo la concerné daal di leen taalal micro waxtaan ak ñoom ci mbir mi naka rek la demee. yaay booy maa ngi lay nuyu. maa sama doom. naka la. Mané Samba. Mané lan ci élage mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. man ma yaayam ñoo doon wëjje yaayam jiitu bàyyi ma fi mu nekk ak ñoom élage nekk ku baax ku yaatu. ku baax ku am na si ay rakkaam moom mooy taaw ku am na si ay rakkaam bis bi ñu koy jël fii di ko buddi di ko yobbu fii jël ko si biir néeg bi naxar lañ am ñun ñëpp parce que moom geerul geeraalewul daf doon génn di añi ñu sànni rakaromage bi mu doon daw di dellu ñu fekk si biir néeg ba di ko xëcc di ko buddi di ko yobbu yóbbu ko si terrain bi def ko lu ñaaw def ko lu ñaaw ñépp xale taxaw si palanteer bi di ko tiim te mënuñoo wàcc fekk def ko lu ñaaw la salte nag bàyyi nañ leen ay yàlla yàlla mi am doole di fajal ñépp naxar wi ñu teg bàyyi nañ leen ay yàlla yàlla na leen ko yàlla teg metti na nag metti na ngeen yëgee rek xibaar gi ne seen doom daal dinay génn àdduna fale ca Casamance. waaw man démb wax nañ la rek dafa feebar bi ko doon songa bi ko doon jàpp jàpp naka dañ ko yóbbu hôpital ñu ba si kanam rek ñu ñëw ooñu nañu dee na lii rek lañ saam dee na moom lañ saam mu doon lu metti depuis biñ ko defee lii ba léegi joxantoo feebar rek la doon joxantoo wérul benn yoon luy faj faj nañ ka waaye terewul gis nga li yàlla def waaye nag bàyyi leen ak yàlla rek. yan relation nga amoon ak sa doom ji nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo di baax rek bëgg ay rakkaam parce que moom mooy taaw mooy taaw si yaayam man sama waa kër moo leen mag waaye ñoom ñëpp la émaale bëgg leen amul ak kenn xaar ma yàlla. ba ni mu demee ni mu uur yàlla uur yonent bi mu ngi taxaw suñu armeel amulaa kenn xaar ma yàlla baax la defax moom lu mu am alalam bokk ak ñoom man ñu ko la dul yaayam ji mu fekki yal na ak papaam yal nañ eewoo àjjana fi daw si ku baax la ku baax la ma fa dëgg yàlla taxawaay mag rek taxawaayu mag eew ay rakkaam yëpp taxawaayu mag uuf ay rakkaam yëpp moom taxawoo fii wax dëgg yàlla lépp nekk bu nekk si bu fi rakkaam lekkulee sax seeni jabar seeni doom lañu war a taxaw mooy taxaw waaw daal ñàkk lañ koo xam ne duutuñu ko am ñàkk lañ koo xam ne duutuñu ko am si àddina waaye la lii moo neex yàlla ah na xar wi ñu am nii papaam ak yaayam dem na te yu naqar ñu am nii mosuñu ko am man de papa moom ma yoroon sama njaboot waaye moom naqar yu ma ma tale tey yii yàq yàq nañ koo xam ne daal dutuñu ko am daal tooñ nañ ñu daal tooñ nañ ñu tooñ nañ ñu mas ñoo gis ku fekk ku geerbu dugg si biir néeg toog nga fekk ko sa néeg ba di ko buddi di ko génne bi ñu ko defee loolu sa ëllëg sa sama sët ab jarbaatam dem di jëndi sandwich fu lañ ko dogaalee dóor ko ay liif ba ba dóor ko racromosel fii dañ ko doon yóbbu hôpital muy dem ak ñëw bàyyi nañ leen ndax yàlla bàyyi nañ leen ndax yàlla yàlla nañ àtte yàlla nañ àtte ñoom duñu ko jéggale mukk lii accord yan jikko wala yan qualité moo la gën a marqué tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. lewet tëdd ay rakkaam ay rakkaam yëpp tëdd si kawam. tëdd ay rakkam yëpp tëdd si kawam ay mën na ñëw dogal léegi mu ñëw mu ñëwee day ànd ak ñoom si li ñu dogal amul dara mu siy bañ. boo jàppee daal di koy dóor ba daal di koy yóbbu fi nga xamante ni moo di hôpital bi nga demee jot nga gisante ak moom. man dem ma woon xale yi ñoo doon dem. waaw xale yi ñoo doon dem xale yu góor yi ñoo doon dem man dewuma waaw dewuma waaye wax nañ ma kër tey ni mu méttee yëpp andi ko si portable ma di ko gis mu métti biñ la ko wonee ci téléphone bi nga daal di gis sa doom nekk ci yenn situation yi nga xam ne kii mu ngi dund métit ñu daal ko ciy teg yóbbu ko fi nga xamante ne moo di police ban naka nga ko dundee en tant que yaay. defoon naa ne sax du toog ba continuer na gën a naa ne du continuer ba na gën waaye yàlla mooy. yor ba kenn mettital nañ ka gaañ nañ ka dóor nañ ka def nañ ko lu bon lu nekk waaye nag ñoom la. d'accord yaa booy ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma masawu di bokk ak yow tiis bi aussi. yàlla baax na yàlla na leen yàlla fay yéen laaj dañu naqari si yéen fay yàlla na soxna si maa ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. man Abi Fall. Fall lan nga ci El mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeeku. waa El Hadj Alaaji Fall max moom suñu ñaari baay ñoo bokk ndeyax baay waaye man li ma ko xamal mooy boroom xol bu rafet la waaw xol bu rafet la yor ka baax la waaw ka baax la daal waaw nit tax xol mooy nit moom nag ka baax la. su ma ay vers man sax vingt heures laay kër gi lañ jékki-jékki sama mag bi ñëw rek nañu digu moo gaañ nit diw ñu ne waaw léegi ñu wax fee si lañ yëgee ndeke dafa demoon jigéen soo affaire yooyu si la affaire bi daanele ka lépp début bi manifestation lu juge parce que man lii lépp bi ma koy yëg maa ngi nimsaat manifestation fekkuma fi muy daaw ci koor gi mais fee yi mooy dañ ko fekk ba si biir këram parce que nit mën na atteindre benn âge bi du dugg ci ay manifestation boo ko xoolee rek di nga xam ne ne kii rythme mayu ko muy dem ci manifestation mais dañ ko fekk ba ci biir c'est lui génnee ko yóbbu ko ba ci biir ci biti fii ci benn bayaal fii di ko dóor lépp homme de tenue ñoom ñooy coupable ñu ngi ñaan nag justice am parce que am na loo xamante ne ni doxul du yëfu nit du yëfu nit la fait que nit ki nga jëlee ko ci këram ñu ne deetawaay nga jël ko dóor ko yàq ay parteem yëpp dafa ñaaw daal lu ñaaw lañ ko def te ñu ngi bëgg na justice soit faite parce que le fait que ñu jëlee ko ci biir këram dóor ko te il n'a rien à ak manifestation bi dafa ñaaw dafa ñaaw torop torop ñu ngi koy ñaawlu di ñaan yàlla nag fi mu jëm gënal ko fi mu jóge parce que li am am na ba pare waaw lan moom ma gën a marqué si moom donte dëkkuñu suñu kër yi soriante na mais ñoo bokkoon këru famille bu ñu jógee li ma gën a marqué si moom mooy ko bëgg comédie la waaw dafa bëgg comédie lu muy wax rek ay ay ree la daal dafa bëgg comédie daal nitu jàmm la daal la paix ambiance moom loolu la bëgg waaw waaw si biir seen wàlla jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan people 221 wasaare TV comme ni lañ leen ko waxee tey ñu nekk file ci Ngor ci génn àdduna ki nga xamante ni moo di El Hadj El Hadj nag daal di génne àdduna ci daal anam bu doy waar loolu nag sabab suñu ay tànk file ci ay mbokkam ñu ngi toog ak kenn koo xamante ne ni membre la ci famille bi dañu koy nuyu rek daal di koy jaale bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi doon leen di fay ginnaaw ñu sant yàlla julli si yonent suñu waajur yi El suma suma jërbaat loolu yaayam suma mag la ko. moom nag franchement deewam gi moom bett nañu trop parce que tane woon na sax macha allah ba doomam bi yóbboon na ko Maroc ba mu faju ba tane mais semaine bii rek dafa demoon Casamance ak ay tubaab di liggéey ko après si la affaire bi daaneel euh, di nga day commencé di leen ba bàyyi deret après yóbbu ko hôpital bi si hôpital bi la gaañoo quoi. d' accord El Hadj ñu fàttali ci ne la euh, xamante ni moo di xeex bi nga am ne moo amoon fi la ci Ngor ci la jëlee woon li nga xam ne moom moo dal ndax mën nga ñëwalaatal foofu mbir yi naka la demee woon. mbir yi moom El Hadj moom si kër gi lañ ko jàppee léegi ba gendarme yi ñoo ko jàpp ba bëgg ko accuser ne moom si ñiy taal kër yi Farba Ngom la te boobu yàlla xam na ne moom mu si kër gi jabar yi rakk ji sax moo ko joxoon kaasu kafe mu naan kafe ba si biir kër gi lañ ko jàpp dërëy ko dóor ko dóor yu métti waaw après si lañ ko jàppee noonu lañ ko tëjee tëj nañ ko si hôpital bi yàgg na fa après ñu yóbbu ko hôpital opéré ko faar yi dem ma si noonu la bañ après biñ ko bàyyee si lañ ko yóbbu Maroc mu faju ba tane noonu laal eh, doy na war. police yi ñoom ñoo ko dóor ba faar yi dem ñoo ko gaañ ñoo dem ma loolu moom am na amoon na vidéo sax am na ngeen ñu doon passé vidéo bi man man aw ma aw ma vidéo bi man dama ko seetaan nii mais door yi ñu ko dóor moo tax man mënatuma xool sax loolu. parce que sa koo sa doomu mag moom ñu jëf ko jëf ji ñaaw joogu dëgg dëgg doo ko mën a xool mais nag dañ leen di bàyyee yàlla rek xam naa àtte yàlla moo gën lépp parce que waxuma fi mu nekk yàlla moo tudd deeyam mais d'accord mais nag dee gi mën nañu wax na si dóor yi la jóge parce que bu mu demee boo dënn lii say ay euh, poumon sax dañ ñëwoon sang si nekkoon quoi bi mu nee hôpital opéré nañ ko ba dindi xam naa nag satul mais tane woon na mais après si lii la mujjee daal nii la mujjee demee. loolu moo après mu tane woon na carrément sax waaye dem bi mu jógee Maroc ñu na foofu ba ñëw fii eh, ba après mu doon dox ay besoin même euh, Casamance gi ñu dem sax ab liggéey lañ fa demoon après nag ñu daal dem jé si loolu ñu téléphone ne El Hadj mu ngi hôpital après lañ ñëw gaañu na noonu. El Hadj euh, def na 72 la juddoo El Hadj war na jàll 50 et quelque ans. 50 et quelque am na ñaari jabar am na ñaari soxna. kenn blessure man dossier bi rek lii ma ko baax parce que dossier rek rakkaam mu ngi fi sax rakka ji moo yor dossier yow yëpp waaw waaw ku say ñaari sa faar yi damma faar yi damma kay man des ñu opéré la man feeti dëgg naa ko hôpital mais dañ ko sololoon benn lycée bi pour tiire deret bi quoi waaw yëpp te li mu nekk hôpital yëpp centre boobu mu ngi en garde boobu garde garde yi lycée yi ñu ngi boobu si kaso bi la jógee ñu yóbbu ko fële fan foofu lañ ko opéré waaw biñ ko dóoree kaso lañ ko jëkk yóbbu waaw que man nag jàpp ma exact ñaata weer mais bi ko biñ ko yóbbu bi mu jógee fii si kaso bi dañ ko yóbbu hôpital biñ ko opéré foofu ba mu toog foofu ba tane si lañ ko yóbbuwaat si kaso bi. te boobu lépp mu ngi sooxaale ak bi noonu la koy si lañ nekk rek ba ñu ko bàyyee nag après si lañ lijjanti ba doomam moo ko yóbbu fële Maroc. mu def ay traitement prison direct dañ ko dóor dóor yu métti fii direct directement fu lañ koy bëgg a fële prison si lañ nekk la lijjanti ay commencement kenn du ko gis rek Sénégal moom doy na koy mais yëpp ñu bàyyi si loxo yi yàlla rek yàlla leen ëpp doole non génnul pour xeex si kër kër gi lañ ko jàppe kër fii suuf am na boo yeeyu xeex mais moom si kër gi lañ ko naan na boo ba ngi dañ ko dëri di xëcc ci kër gi di ko dëri ba si bayaal bële boo xool kaset man amul ma kaset bi mais bu ma ko amoon dinaa leen ko wan mais dóor yi ñu man man loolu mënu ma ko xool sax loolu xam ne kañ koy àddal di ko def nit ndax daal di sol wéex seen fitale yëpp di dóor nit ki rek day na war mais daal ñun daal. moom fan la ñàkkee bakkanam fii la ci Ngor wala. non fële ga Casamance. ba léegi corps bi mu ngi si yoon wi sax am na ambulance bu koy andi moom lañ doon renseigné woon nii xool kay ban heure lay ñëw waaw. Hmm. Hmm. non man de côté moom lijjanti ma man dama naa lii daal man affaire dama si demoon ba dama découragé woon carrément après laa si génn quoi suma suma raqaam bi nag peut-être ñoom gisee mais man après affaire dama leen la bàyyi leen lii si loxo yi yàlla rek yàlla leen ëpp doole parce que nit bu bokkoon si ñi doon toj moom tojul toj yàlla wala nga fekk nga dikki sa kër dóor ko dóor yu metti yóbbu ba pare télé ñu accusé moom si ñi taal këri Farba Ngom la te jegeñul foofu sax bi ñu taal ak fëri Farba Ngom waaw ñu bëgg ko accuser si ñëw xam nga boobu ñu ngi ut bi rek bëgg la ñuy ji nit ki ko mhm. waaw mais nag yàlla baax na dañuy bàyyi lépp si loxo yàlla rek yàlla mooy àtt. d'accord gannaaw ba ñu la ko jaalee kàddu yu yi nga xam ne mën na nga ñu ko jox ci élage Hadj mi nga xam ne tey moom moo fi bàyyeekoo. man day su may jarbaar lañu moom am na ay petit frère am na waaw moom moo si mag si góor ñi mooy taaw bi sax suñu doomi aj yi mais yàlla xam ne moom mënu la wax man di ma xool moom bu wax bu wax moom du ma xool parce que moom boo amee laa am ay coow yu sew amee sax dañ ñaa óoleen aala man bu ma taxee moom moom lu ma wax moom da nga da siy ànd da la doon nit koo xam ne moom du tooñ mais boo ko tooñee moom moom mën naa <laughs> reyante yow fii ba suba mais tooñ moom da ragal te loolu mu ko daal toujours wax man nga tooñ moom du gàllaaj nit ku la tooñ nag moom bàyyil fajal sa bopp moom nag moom loogu mënu ko muñ waaw loolu day am si nit am na ñoo xam ne dañuy ragal tooñ te moom danaa daxa ragal sax ñu toog ñu ne kaa yaat tooñ mu ne moom loolu laa xalaat ci dundam mais ci lii koo gisoon kaset bi daala xam ne ni ñu ko jàppee si biir kër gi pour jabari rakk jàngee téye si tànk bi na yéen kii bokku si ñu puus ko fële moom ñu puus daw si fële xëcc diggante réew ba si fële si bayal bi dóor ko dóor yu métti wax yàlla nag mooy rey ba non boo jabaram nekkul fii fii jabaram jenn ji ak mbuur la ab waa mbuur la kenn ki wàngoor la mais nekkul woon fii jabari rakk yi ñoo fi nekkoon quoi non noonu la affaire bi demee daal wow dee nag moom yàlla moo yor dee mais nag lii moom man man na maa lise si lii la si lii la soogewu dóor yi mu nga oh, man day man de ma part man daal bàyyi na ma naa lépp si lépp si loxoy yàlla mais nag xaw ma nag ñi gars yi la ñuy décider mais nag metti na trop yàlla xam na ne metti na trop ñun démb ñu oo dañ ma oo fi ma doon liggéey ñu ne ma ah, El Hadj ma ne El la ñu ne dafa gaañu ma ne fan la gaañu ma ngi wax ak moom ba doomam ji nekk France dana ma da ngaa yóbbu ñu ne ma dafa gaañu ma ne gaañu fan ñu ne ma Casamance ma ne kay la dem Casamance ñu ne lundi lundi la dem Casamance ak yéen quelques boy xam nga moom yéen day àndax yu boy ñuy nettoyé ay bateaux yooyu te moom ndax ay si pêche noonu daal daal moo tax affaire bi metti na trop. non mu ngi ñëw si yoon bi am na ambulance bu ñu ko doon andi quoi sànq bi ñu ootee dañoo romb na Kaolack sànq mais xam naa incha allah léegi mu ëgg seen ja jërëjëf jëf leen yàlla fay. kilifa gi ñu ngi lay maa ngi leen di fay di leen ziar jox seen wàccuwaay. tur bi naka la. man la Jara Fall frère fi bay Baytir Fall. gannaaw bañ ñu la jàllee sa frère bi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo di bokk ak yow li nga xamante ni moo di tiis bi ndax mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir yi rek naka la demee exactement. waaw bon affaire yi ni mu demee mooy événement yi amoon rek depuis mois de mars waaw fii lañ ko fekkoon fii si kër gi torturé ko dóor ko gaañ yooyu nag moo ko topp ba tey gi waaw les gendarmes. Mhm, ñoo ko dóor gaañ ko ba amoon na six côtes cassées. ba ñu évacué ko yóbbu ko au Maroc defal ko foofu ay soins mais finalement procédure bi moo jël temps quoi loolu nag moo waral dieu ah lii xew nii mu amoon hémorragie bu saxatee deret di génn. Mhm. non moom wax dëgg ne yàlla xelaatu ko sax parce que déjà rien que bi ñu ko gisee ah lii mu sol rek war nañu xam ne ne kii bokkul ci événement parce que man maa nekk kër ga fële. oo ko bo koor la ma ne ko ñëwal nga ndogu se bi mu génnee nag si la gars yi tiré lacrymogène yi comme lui il mu dawaatee dugg nag si la ko gars yi fekk si biir fii di ko diri sama soxna si téye si kawam ñu boole ñoom ñaar ñëpp di leen diri jénne mhm. ko fi dóor ko lii yàlla xam doy na mhm. bon bi ñu affaire bi amee ngor bu def na li mu si war a def jëloon nañ benn avocat maître Khoureychi Ba mu nekkoon ci dossier bi def na ay plainte max yëpp. Mhm. bon bi ñu demee hôpital après pénitencier yi ñoo ko jëloon yóbbu ko Abass Ndao di ko fa defal foofu ay soins ñu defal ko ay drainage si lañ gis rajo yi te toog na un mois si prison bi kenn yóbbu ko. boobu mu ngeeg métit beeg feebar bi. métit jour mu ngi leen koy wax bi ñu demee def rajo yi nag au niveau de l'hôpital si lañ gis il avait six côtes cassées. Mhm. loolu nag ba toog na si prison bi un mois dafa da piqué crise si la ko gars yi évacué mhm. moom il avait cinquante deux ans. Mhm. prison lañ ko yóbbu direct mu ngi blessure yi mu ngi lépp te nañ ko si prison bi pendant un mois mu piqué fa crise daanu si la ko yi jël évacué ko Abass biñ demee nag def rajo yeex ki si lañ gis deret ji way si biir mu jëkk defal benn opération drainage pour dindi deret ji wayoon si biir après si la ko doomam bi nag jël yóbbu ko at Maroc mu am fa presque trois mois di defaat foofu ay soins waaw mais depuis boobu ba léegi daal si la ko lii ko dal dal ni moom Casamance dafa demoon moo suñu yenn mbokk fële di def benn kii euh, Euh, kii plongé biñ demee foofu nag ndox bi moo lëndëm mun a booy ñibbi leen man ma toog xaar bu géej gi leeree ma owaat leen pour ngeen ñëw hmm, mais après nag si la fa eh, mititu bopp bi sonnal ko di persister bu saxatee kon ni mu ko doon awee rek bii deret di génn te hôpital boobu amul woon scanner ci la ko gars yi évacué d'urgence yóbbu koy Ziguinchor pour ñu defal ko scanner foofu mais avant ñu def scanner nag foofu la ko yàlla moom sama mag si sama mag parce que euh, vraiment lu ma wax si moom xeeb ko lu ma wax si moom xeeb ko su fekkee suy lu baax rek la man lii ma habitué wax souvent damay wax mooy taaw waaye képp ku suñu papa jur ak suñu yaay jur hmm, moo ñu gën waaw parce que am na xol bi te uufoon nañu ñun ñëpp vraiment amoon na yërmande si ñëpp ñëpp du jàppat dara boo ko meree sax mu jaaxle. waaw vraiment booy wër ku baax ba accès si moom taxawal wallaahi moom qualité yi ñu gën a manqué si moom man maa topp si moom mooy taaw maa topp si moom mais fu ñu toogee bu ñu def di def grillade kenn du laal moom mooy defar lépp secteur bi bu dee ataaya mooy xiim lépp mooy animé lépp daal moom la lépp de manière générale moom la vraiment yéen a ñëpp jàmm waaw doomi jullit te di jullit nag. yor jikki jullit vraiment. Mm-hmm. Eh, dolliwaat di na naxarul rek parce que lii xew fii moo xew si dëkk bi fépp gis nañ gendarmerie ni muy defar doomu aadama yi ñaaw na trop ñaaw na trop waaw vraiment ñu ngi koy mettilu di na xarul bu may dégg sax ñu daal dañuy def ab loi amnistie man naxar boobu laa si gën a am am naa si yeneen jarbaar yoo xam ne bal lañ leen dóor seeni tànk yi yàqu na te mu ngi nar a mu jëwul fen waaw mu jëwul fen mhm. d'accord ndax moom jot na am soxna wala doom waaw mu ngi woon ak ñaari soxna am na fukki doom ak juróom waaw mu ngi woon ak ñaari soxna fukki doom ak juróom vraiment mhm. ndax kooram egseegul wala waaw là actuellement mu ngi en route selon information yi ñu am sànq mu ngi toll au niveau de Kaolack on croit vraiment balaa 14 heures dinañ si jot daal 15 heures incha allah. ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la masawu di bokk ak yow tiis bi nga xam ne moo daal ci sa kaw. waaw Sénégal gépp de manière générale Ndakaaru Njaay gépp Ngor gépp ñoo bokk naxaru avec toute la famille di mettul li ko dal ni parce que boo duggee si ngoor dubu ñëpp añ si commentaire waaw ñëpp añ wax Ngor gépp vraiment. metti na mais ñu delluwaat santaat yàlla rek nga xam ne ne kenn mënu ko coox moom loolu ñoo ko bokk ñoo ko bokk. soxna si maa ngi lay nuyu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim laa hawla min rabbi rahiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaah waaleykum salaam maa ngi lay fay. Ndeye Penda Ndoye. nga bokk ak El mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. alaaji man ak yaayam ñu bokk papa yaayam mooy suñu taaw aji ndooy moo ñu yar ñun ñëpp waaw. gannaaw ba ñu la jaalee sa doom jooju nga xam ne tey moom moo fi daal di jóge di bokk ak yow tiis bi yan kàddu seede rekk nga ñu mën a jox ci moom. Fall de bu ma toogee di leen wax li ma mën a seedeel si moom ah, duñ fi jóg de. rafet xol humble fu mu toog kenn du ñëpp ñëpp dañuy reetaan te intéressant intelligent aussi loolu moom xamoon naa ko si moom yaatu bëggoon mbokkam bëggoon ay rakkam bëggoon bëggoon ma man bëggoon bëggoon famille yaayam surtout ñi yaayam bokkal bàyyi muy ñun on peut dire que ne sax suñu kër la yaroo suñu kër la yaru moom ak rakkam bu góor bu ñuy wax jaraaf ñun ñun ñëpp ñoo yarundoo man nag dama si doonoon koo xam ne si ñoom ñëpp faal fi mu ma tegoon daal man man moom dama doon yëg ne itam tegu fa woon sax yaayam ji jur man sax la gënoon a téye ko aji ba tax na sax Euh, daana ñëw kër gi sax ñu ànd dem si néegu yaayam lañ doon ne guddi ñu toog ak papaam yëpp di waxtaan waaw loolu yëpp dañ ko daan def ba bi mu toxoo ak aawam bi man daal lu mu doon def rek daal man lu si lu mu may boole la. ànd nañ guddi ànd nañ bëccëg defandoo nañ lu bari bari bari amoon nañ complicité boo xamante ne sax dañ da daan jaaxal nit ñi sax waa kii yaayu kii la. ñoom de ax ah li mu ko magee yëpp te terewul donc damay mën a ànd ak moom si lépp faal ànd naax moom guddi fu kenn xamul fu kenn gisul fu kenn kenn maanaam kenn manax moom daal dundanoo nañ lu bari daal dundanoo nañ lu bari bari bari bari ah, tiis bi mbetteel mbetteel mbetteel am na si ñàkk mbetteel itam si biir mbetteel bi am na si parce que bi mu am na benn affaire bu mu jot a dund si yaramam muy luñ ko def lu métti métti métti muy faj mu ñuy faj faj faj faj mu commencé taxaw donc faj boobu c'était pas faj boo xamante ne day doon faju weer wala mu doon faju at je peux diir peux que ne liñ ko def faju éternellement la waroon faal moomu doon doon faju parce que dañ koy yàqoon dañ koy yàqoon bi ma koy mujjee gis ma xool ko. xam naa ne am na lu manqué si moom. ci moom comme naka. lu manqué si moom parce que il était abîmé quoi boo koy seet biiram li si baaxoon barayul ko waaw si ay loo xamante ne mettit boo xamante ne teg nañ ko ko mu dal si kawam waaw si ay dóor dóor yu metti si la jóge après genn wàllu nit la doon genn wàllu nit la doon. ndax faal mi ma xamoon ñu doon ànd guddi ax bëccëg boobu yaayam ax baayam ñu ngi dund mu may fekk suñu kër muy këru maamam ñuy jóge suñu kër di dem seen kër di dox ay ay ay ay dox man ak moom man xam naa faal ndax nit la wala genn wàll nit la bi mu jógee si accident boobu noonu lu bari jóge na si moom te man sentir naa ko te doon nañ si waxtaan itam ñu gis ne tey genre yu mel nii bu amee comme genre manifestation wala leneen ñi nga xamante ni dañu ciy ñàkk seen bakkan du mujjee fenn en tant que loolu ngeen ñàkk ci li nga xamante ni moo di seen doom ngeen koy dundee yéen famille bi. mettit metti lool tar lu méttee méttee métti loo xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañu dund démb dund ko ak suñuy ndey dund ko suñuy baay ak suñuy maam mu doon loo xamante ne nii jom la ju ñu def si ñun. du ñu dellu ginnaaw du ñu ragal du ñu tooñ dëkk dañ ñuy tooñ ku ñu tooñ dinañ la fekk c'est parce que dafa metti ngor tey boo duggee ci dëkk bi xale yu góor yëpp ñii ay làggi lañu doon ñii lu bari manqué na suñu yàq nañ ñëpp ñii ñu amputé leen ñii ñu greffé leen ñii ñii di dox di faju boobu ba léegi mënuñoo fexe ba wér si ah, loo xamante ne nii kenn xamul lan la kenn xamul lan la yëfu àdduna Aliou tey deful dara demul deful dara kaay nga ndogu dem di ndogu ñu dabu la def la li lay def toroxal la même ñu la gaañulee sax am na yenn toroxal yoo xamante ne buñ la ko toroxalee góor nanguwul toroxal yooyu noonu waxatuma la ñu jël la tëccal sa yaram bi yàqal hémorragie yàqala ba kenn xamul la lan yàq àdduna bi yëpp yàq xale yi yëpp mais yenn yi sax yenn yi góor moomu ko yow. te ko defee loolu ba mu am ay gaañu gaañu dañu ko yóbbu fi nga xamante ni moo di police directement. dañ koy yóbbu mënuñu ko jot mënuñu ko gis mënuñu xam lan moo ko dal ñuy def seeni i yëf téye xale bii di ko def noo xamante ne nii kenn xamul lan la man ni ñu ñu yebal man ni ñu ñu yebal ah jàpp xale bi toroxal ko ki gor la gor la te loolu sax moo tax mu toog ba nëgër ni si gor gi mu doon moo tax mu toog ba nëgër ni si parce que liñ ko def am na ñoo xam ne bu ñu leen ko defoon tey duñu tenir bon duñu tenir mais li metti na trop yal nañu yàlla àtte ndëkk yal nañu yàlla àtte yal nañu yàlla àtte te taxawuñu aaral ñu ñii des ci jeunesse bi nga xamante ne des nañ ci ngor gi nii te di wéyu seen ngor seen ngor ak maam ak seen. allahumma soxna si maa ngi lay nuyu. maa nga bokk ak El Hadj nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo. ko benn papa. d'accord gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di ñëw rek dal ci seen kaw yan kàddu yu sedd nga ñu mën a jox ci sa mag ji nga xam ne tey moom moo fi jóge xanaa kàddu naxar rek naxar am na ñu metti torop ci demam bi mu dem nii ndax xajoon na fi parce que matoon nañu baay matoon nañu yaay soutien de famille la woon doon na taxaw ay rakkam yëpp ci kër gi donc metti na trop metti na mi ko def ni dafa metti trop ci xol bu ñu ko jël ay njaboot yu sew kese la fi bàyyi ak ñaari soxna ak ay rakkam yu ndaw ñu jël ko def ko jëf ci jëf nii metti nañu torop yaay yaa ñu yàlla ak tey ñoom Alaaji moom mën nañ rafet njort si moom parce que xolam yaatu na te bëggoon na ambiance fu mu toog kenn du ay rakkam kenn du mer dañuy doon feccal dañu waxtaanal yëpp bëgg a fekkee nga triste sax du bëgg nga triste kenn du laal rakkam lu bokk si moom kenn du ko laal dafa bëggoon ay rakkam xolam oyof bu bëgg a dee. naka ngeen yëgee rekk tiis bi nga xam ne moo ñaw rek daal di dal ci seen kaw. man moom damaa jóge si kër gi damaa sëyi nekkuma fi. démb daal lañ ma woo ne ma ñëwal ci kër gi léegi alaaji dafa am am song bu metti man ma ne sama yaay song kon daa dee parce que xam naa li mu doon dund ndax boobu ba tey wérul woon ndax lën di rek defe naa avant muy dem lañ mujjee gisante maanaam moom mais boobu dafa jeex tàkk dara desetul woon si moom ba su ma ko xoolee sax dama koy yërëm ndax dañoo yàq bu dañ koo yàq bu mu yàqu moo tax bi mu ma woowee wax ma ñëwee rek alaaji dafa am song ma ne ko alaaji amul song alaaji dee na lii laa gannaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko odóor yaakaaroon ne day manifester fekk manifester wul ba ñu mbir mu amee ndax jot nga gisaat alaaji ci diggante bi. waaw non après xanaa biñ ko dóoree noonu dañ ko jël yóbbu ko prison mu nekk presque weeru koor bi yëpp foofu la ko paasee. mais boobu ñu ngi jot ay nouvelle am ndax sax chaque fois dama doon woote di ko laaj su waxee rek ñu ne laaj mii ci prison bi waaye muy dund foofu metti na torop ndax wérul mais comme te ñun mënuñu ci dara affaire yoon la ñu jël yëpp teg ko ci yàlla rek ba bi mu génnee prison ci déggante ak moom téléphone comme man dama sëy nekkuma fi ma waxante moom téléphone ñu wax ma génn na rek ma woo ko ne ma sant naa yàlla bu baax noonu après souvent benn jour mu ñëw fi may sëyee ñu tege foofu may ñëw si kër gi noonu lañ doon gisante teguñu si une semaine bi ma gëjee gisante moom léegi matul sax ay cinq jour matul parce que daf may jub ba may jub rek après mu dëppaat oññee ko xam naa boobu moom may tàggu. Mm, yan jikko tey wala yan qualité moo la gën a marqué tey ci ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. baax ambiance bi rek. ndax kenn du ñëpp moom dafa ñeme woon ambiance dafa ñeme woon toog bégloo ñu ñi da doon bégloo ñu ñi rekk ci kër gi kenn du kenn du mer dañ koy ñaanal yàlla na yeewoo àjjana yàlla na ko fi mu jógee nii yàlla na fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. xamante ñu ndax damay jaay dafa ñëw fi may jaayee mu ànd ak benn xaritam xarit bi xamuma c'est la première fois mu may gis mais comme ñun chaque jour suñu trait yi dafa nuroo boo ko gisee da ñun ñëpp dañoo am trait kooku xarit bi di ko tooñ naan ka waaye yow loo bokk mu ree ko mu ne ko yow loo bokk ak mu ne kii sama petite mu ne ko waaw lii kay mënul nekk hasard noonu jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la masawu di bokk ak yow tiis bi aussi. amiin ñu leen koy jaale yéen ñëpp tamit.